su ma tuddee turam dama koy may bës ndax ñun lépp fi leen du fekk ndax bi ko bàyyam di génne ñun fi leen du fekk boobu ci ginnaaw bàyyam génne ko mu génn bi mu génnee moom ci jëmmi boppam ki nga xam ne tey ki muy xas di ko jël ay xeet di ko sànni ginnaaw yàlla moo ko jëndal ak kër tabaxal ko kër ba kër gi yegg kon bu ko dee xas kon jàpp naa la mu koy wax wax ju bon jam koy wax moom moom ci moom moom la nekk waaye nekkul ci président Madické Niang ndax li tax ma wax loolu dama koo xam bu baax Cheikh xam naa ko bu baax a baax a baax ndax Cheikh Mbacke tey boo dee seet sën la maaraw ñi mu àndaloon ñëpp tey Cheikh Mbacke doy na ndax kër gi nga xam ne moom la am Dakar kër googu moom ci mboof Abdoulaye da leen ko joxoon pour da leen maynu xaalis waaye bi mu leen mayee xaalis dafa am loolu lu ko taxoon jóg ndax staff bi nga xam ne ñoo ko waroon ñoo taxaw ne ko Cheikh li nga xam ne liñ bëgg pour nuñu jàppale Abdoulaye Wade mooy nan lay def ba Ablaye bu ñu jox xaalis booba ñu jënd kërum Dakar di ko def ci suñu compte di ci jàppale askanu Touba mu ne waaw. bi mu demee ba Ablaye jox xaalis bi dana tibb xaalis bi dem jënd kërum Dakar kon moom jëmboom ak leneen leneen lu ci xew. kon moom am na loo xam ne su fekkee ne bu ko lu mu wax ma dikki rek am na lu bare bare lu ko xamal te liñ ko xamal na ñuy am loo xam te ñu di ko wax nit ñi nañ def tey attention ci Cheikh Mbacke Bara Dolly ndax Cheikh Mbacke Bara su fekkoon ne bu baaxul ñëpp tey dañ ko taxaw bàyyi. te Touba gi Touba gi Abdoulaye Wade lépp lu mu fi ñàkk seen mbàkk baat doole tax mu ñàkk ko fi. xam nga Abdoulaye euh, kilifa la sunu maam la waaye Abdoulaye Wade xamu fi ne nii fii nga xam ne fi fi la dëkk bi toll xamu ko ndax bu xamoon fi dëkk bi du jël du jël du jël lu toll noonu di ko renforcer waat di ko dooleel ki nga xam ne mooy Cheikh Mbacke Badool yi ndax tey boo dee xool xoolee image yi nga xam ne moo wees ci ginnaaw élection député yi nga xam ne lu ne daj nañ ko ci nga xam ne élection député yi ñëw nañ fii ñun bin jàpp meeting bi Mbacke yaakaar naa loolu am na loo xam ne yow am na loolu am na ñu bëri bëri ñoo xam ne lu ci xam nga xam ne meeting bi ñu koy jàpp Mbàkke ku mel ne Aïda Gaye ku mel ne Mame Mbaye Niang mel ne Adji Seck ñooñu ñëpp ginaa yàlla bu ñu génn parti bi Cheikh Mbacke tax ñu génn parti bi te ak bonam ak ak yéesam moo tax mu génn ma di wax ma di ko wax ne ko koo xam ne ku xool bët boo xam ne bu nu neexu ab taalibu Sëñ Tuubaa la di nekk nit koo xam tim ku bàyyi xel ñëpp doo gis mu wax wax ji bon doo gis mu wax wax ju wax joo xam te koo ko fekk ci xeeb ko ci. Cheikh Mbacke nag man njóogu man maa koy jox di ko di ko di ko ko jox sama appel. naan ko Cheikh Mbacke Bara Dolly na bàyyi ma dikk ñaar ndax ma dikk ñaar du moromam.